ku nekk ak la fa ne ku nekk ak nga tane ku bëgg nag sa mbir tane weeru safar wi fursa boo forcé wul jéem a sawar te boo amee sa fas nga war ni bismillah génn sa kër te màggali farata la ñi yor oto ñi war vélo ak sa barke ku ci tolloo solal sa mbubu rekk kolu wuti nag dëkk ba bu la neexee di doxe ba di waxu sin ak mi mara wuti Tuuba farata la boo duggee it ca dëkk ba siyaare borom ca la nga bëgg desu jox ko addiya soo gaña auzu billahi mina sheytaan rajim bismillahi rahmaani rahim mbokk yi ñuy seetaan ci seen site 28 pro tv ñu ngi am mbégte ànd ak yéen ci édition spéciale maanaam doxu safar mbokk yi xam ngeen ne weeru teru na fii nga xam ne moom mooy dakaar nag lañu fekk ñu am yéene mbokk yi tegtal leen benn waxtaan bu am solo jógee ci jëmm ji nga xam ne moom taalibe la te bu weeru safar tero rek liggéey bu am solo la ci def taala si la lañ koy wax di kenn ci ñun koo xam ne ñu ngi koy nuyu de passage suñu wëllëree sëriñ Saliou Bousso booleen moom moom muy nekk kenn tamit ci moom du yàgg mbokk yi dañ koy jox rek mu nuyoo ko mbokk yi ñuy seetaan bu ko defee ñu jublu ci waxtaan bi sëñ bi si la ñu ngi lay nuyu di la ziar. Ah, maa ngi lay fay di. nuyu tey ziar mbokk yi nga xam ne ñoo ñu dalal yépp ci vingt 28 Pro TV ñu sawar lool ñëw ci euh, ndax 28 bi waaw di xurufi Tuuba euh, ñu sawarit ñëw bi ci ñëw bi mu jaare ci Serigne bu Bousso waaye nu ànd ak moom ànd ak yéen di siyaare sëñ Mountakha Bassirou euh, di ñaan mu yàgg fi lool te wér Euh, di ko ñaanal njabootu Serigne Touba yëpp waaye di ko ñaanal ñu baax ñépp euh, lii nu dugg nag di weeru safar euh, duggee ci jàmm weeru jàmm rek la moom moom la indi te incha allah ci moom la ñuy gungente ak moom ndax dafa daje jamono bi nga xam ne ñu ngi jëm ci 18 safar bi sëriñ Touba di sàkku ñu santale ko ci yàlla. ci ak fàttali tuuti euh, ñi ñi xam ne ne xam nañ sa jëmm ji xam na tamit ci li ngay yëngu lu ci bari waaye dolli maanaam euh, da ci am solo ak fàttali taalu si la doomu Thiès doomu ndakaaru doomu tuubaa fan la ci. Euh, moom daal boo pour boo bëggee mu yomb dangay wax taalibe Cheikhul Khadim ndax bu dee ci wàllu. Euh, ay dëkkuwaay ki cosaan suñu borom euh, daf maa jaarale fu bëri euh, ndax suñu boroom dafa teel a yóbbu sama baay bi ma amee juróomi at kon loola tax na ba fa ma waroon na ne neew ma fa man Pikine laa juddoo damay wax souvent ne par accident ndax sama jur Thiès lañ dëkk waaye mu amoon jamono mu am lu tax ñu teew pikin ma juddoo fa alors euh, ca Dominique loolu la yàlla dogal waaye euh, Thiès fa laa duggee euh, alxuraan falaa laa duggee école voilà jànge ba tey jii néew na koo xamante ni soo ko waxee ne ko man pikin laa juddoo dina ko gëm ndax sama yaay fala la dëkk <laughs> yaayam dëkk fa maamam dëkk fa keneen dëkk fa kon cees boole nañu waaye it suñu borom boole nañu ak Louga njàmbur boole nu ak jolof boole ñu ak saalum boole ñu ak bawol boole ñu ak yeneen i barab moo tax dañuy sant rek waaw. kon na ne jàpp ne comme ni nga ko waxee rek doomu Touba nga euh, def nga daara. waaw dama ne la moom laa njëkk def balaa may dugg école ndax xam nga tey ji boo demee kër sëñ Ablaye Yàqin ci cees moom la ñuy woowee murit ga xam nga foofu moom kenn mun cee rëcc waaw <laughs> loolu foofu moom kenn mën cee rëcc ah, nuy nuy sant nag ndax. bu la suñu borom mayee nga gane àdduna te ñi la wër euh, ak taalibe na ci ñoom day daldi am solo euh, tey jii boo xoolee am na ku ñuy wax Cheikh Mor Samb Kamit àndoon ak euh, ku tedd ki ca ca ca gànnaar waaye nekkoon nañ moom it tamit ca njaareem kamit nag boo ko déggee kamit sàmb ci ginnaaw Louga la juróom benn kilomètre ginnaaw Louga léegi sax daanaka taxaloo na euh, Cheikh Mor Samb mooma euh, nga xam ne euh, jàkka ji mu defar ci kamit ci ndigalu sëñ bi la woon ak kaas bu fa defaloon boo xam ne njabootu sëñ bi yëpp ku nekk dem na fa ba tey ji ay ndigal yoo xam ne sëriñ Touba moo ko joxe woon ci barab boobu tax na ba tey ji lépp loo xamante ne nit soxla na ko Euh, ci barab boobu boo demee bu ñu lay ñaanal ca suuf sa lañ lay ñaanale ndax ndigal bu ci suñu boroom euh, joxe jaarale ko ci euh, Cheikhul Khadim donc kooka moom maanaam mooy mooy wayjur ci sama yaay. donc kon nga def daara bu ko dee boo boo ñu doon dikkal ci sa démb ci sa daara maanaam bu nga fay soog a dugg ban genre comme gone yi ni gis ni tey jii nga nekkoon. waaw xam nga comme ni ma la ko waxee rek foofu kër sëñ Ablaye Yàqin googu euh, maanaam boo juddoo rek déjà dañ lay nàmpatal ci ak taalibe ba nga xam ne ni ñenn ñi di mel xëy na ma yow doo mel noonu waaye nag man ci sama wàllu bopp am na euh, wet yoo xamante ni mel naa ne xawoon naa ci amuk rëcc tuuti ba xëy na ma daan doxalee ak na sama morom yi daan doxalee daawul doon benn euh, waaye nag kenn mësuñu Euh, euh, kii euh, maanaam teg dara sunu der ci ñàkk fonk sunu njàng wala lu nu mel waaye nag ci mbir yu bari nag sunu borom moon ci orienté woon ñu ne ci. yàggoo fa dem école nasaraan waaw loolu loolu loolu noonu la tëddee noonu la tëddee ma dem jàngi woon ci foofu waaye nag comme mosuñu faa jóg te mosuñoo jóg tamit di nekk ci sunu sunu ay ay ay ay ay ak di nekk ci sunu ay yëngatu yi nga xam ne moom la ñu xam moo tax tubaab yi mosu ñoo mën a këf yàlla dogal na dem nañ ci école dem nañ ci lycée dem nañ ci ay université euh, nekk nañu bitim réew jaar nañ ci barab yu bëri waaye nag euh, li ma daan wax toujours rek ne tubaab yi jàngal nañ ñu nag waaye moomu ñu ndax dafa fekk lu jiitu ci ñun sax ci ñun muy njàngalem Cheikhul Khadim njàngaleem Cheikhul Khadim kon donc euh, li nga xam ne moom la nit ñi tamit gën a mën a vulgariser moom mooy culture mouride bi nga xam ne nii euh, bokk na ci saa su ne ñu koy relancer waat ci bu màggal dee jub moom mooy ay thème ak yooyu euh, donc nit ñi dañ cee war a tamit jëlee maanaam màggal kon du jàpp ne maanaam dañuy berndeel mais dañ ci war a jàngatee tamit. waaw xam nga ñun nii moom dafa am loo xam ne ñun dañ ko gëm te amuñu ci complexe. chaque fois bu ñuy wax dañ naan yow yàlla noo ngi ñaan ci barkeb nabi Sénégal jaare ñu ci yoonu Bamba ba ba janni yaa ngi dégg Sénégal bu jaaree ci yoonu Bamba ba janni kooku kooku xéwalu ñëpp lay doon euh, ndax nag bu fekkee ne dafa am ku la defal loo mënta defal sa bopp féete la foo mënta féete sa bopp dafay jaadu yow mi nga xam ne yaa jot ci xibaar boobu ndax fekke woo ko nga war a seet ci noo mane pour won ko ni yëg nga loola la woykat bi di wax ne may ñëw wax ak ñay wutal sëriñ bi mu kem te ñàkk koo waral ba mu yenn woon yenn bay dem dem na Gabon ci ngor ba delsi ak i ndam dellu gànnaar ba delsi waat indi ngërëm loola nag tey ji ñëpp xam ni moo waral bu ñu duggee ci weer wi ñun ñëpp ñu ciy wone loo xam ne ci ndigal la di jóge d'abord ci ndigal la jóge ndax da tey sant sàkku ñu santale ko ci yàlla loola nag ñu di ko def waaye di ko def ci anam yi nga xam ne moo dëppoo aussi ak li nga xam mooy sunu ngëm-ngëmu en tant que ay ay taalibe murit loola ku ci nekk nag dafa am noo koy defee ñi ngi ci ñun ñii am na nun koy defee euh, et boobaak léegi ñi ngi ci am ndigal parce que nag lu ñuy def tamit dañ koy wéer ci ndigal hmm. kon donc looloo waral taala si la du su weeru safar teroo rek day gelé activité am yëpp jublu ci biir fi nga xam ne moom mooy 18 safar hmm. mais ak noo koy waajale parce que euh, gis nañ ne benn am na benn benn benn benn générique buy daw euh, ak ànd ak vidéo yooyu dafa bokk ci ni koy waajal mais yow en tant que taalibe nga xam ne nit war na la xool def ni yow wala bokk nga soññ ko ci liggéey bi nga xam moom mooy 18 safar bi noonu koy waajale waaw xam nga euh, dafa doon loo xam ne sunu borom ko indi am na benn kilifa gu mag gunu bokkal yoon wi boo xam ne daf may wax ni lu ma yéeme nii seen dox bi amul ma ni ko lu tax Mbàkke mu ne ma dama gis ne magoo fi ëppoo fi kàttan gënoo fi gëm day day nit ñi sax ñoo la ëpp ëpp la kàttan gën la yàgg ci mbir mi yaa ngi dégg waaye mu mel ne dox bi dañ leen ko dencaloo ndax ñun ñëpp ak li ñuy yëngu lépp waaye sunu xel mu cee dem ma ni ko loolu nag mooy Cheikh Ahmadou Bamba Xaadimu Rasuul kenn ku ci nekk ak lam la jagleel te taxul nag nga gënu kenn ab cër ndax kenn ku ci nekk lay wàllam rek lay mën a dox kenn ku ci nekk ak nam ko waree ak nam ko manee na la koy defee lépp mooy ànd nag jëm ci màggal gi waaw ñun ñi yàlla dogal na ci 2005 la ñu amoon yëg-yëgu dox bi bañ koy doog tàmbali nag dañoo dañ ko amuñ ci expérience moo tax yooyu yaa doon gën a metti ndax organiser wuñ ko woon ni mu waree dañu jóg rek jël yoon wi waaw forcé maanaam forcé bu njëkk ba ñaari fan ak genn wàll alors booba ba ñu demee ba egsiñ ngaabu te ba may dox ca booba 2005 bu ci feebar laa ko defee ba mu amee yëg-yëg bi rek laa ko def danaa àgg ak du ma àgg lijjantiwu ma ko. waaw danaa ko def rek. waaw léegi euh, booba maa ngi bëgg a barkeelu ci sëriñ bi yooyu nga xam ne dund na ko ca fa mu nekkoon te defal nu ko nun népp booba ba mu amee yëg-yëgu barkeelu boobu seetuma man lu muy lu muy tëddee woote naa daal ne damaa soxla 18 yu safar ngir 18 safar booba ñu doonoon 18. ñu tegu ci yoon bi ñu tollee ngaabu mu am ay mbàkke mbàkke yu bari ànd ak ay mbusoobe euh, ñu ñu jël ay oto fekk sunu gate gate ñu ngaabu ñëw nenu ma président daal euh, xam nañ ni dangaa jagadi euh, te ngaabu ci Touba la bokk nu buggoon rek ngir jëmmi sëñ Touba nga may nu rek ñu yemale ko fii ren ah ngeen jóg dem ma ne ko booba ka doon wax ci seen tur sëñ Mourtala Bousso la bu sëñ Abdou Wadoud Bousso euh, wallahi euh, ma jaarale ci pour ziar euh, sëñ Abdou Wadoud Bousso bu baax a baax léegi ma ne ko pour wax ji yem fi maanaam bu ma faatu woon léegi ñi may yóbbu bu ñu doxul baalu ma leen ko ca la ma waxee kàddug sëñ Tuubaa boo xam ne keroog laa ko njëkk a dégg mu ne ma sëñ bi de nee na boo ma defalee li nga man ma fay la loo mënul boo ma defalee loo mënul ma fay la la jomb suñu borom dogal bañ koy tàmbali sëñ Saaliwu moo fi nekkoon yàlla na suñu borom doole ay leeram euh, ñu def ko ba 2009 muy juróomeelu at mi 2005 2006 2007 2008 2009 boobu bi ñu ñëwee mu dalal ñu comme ni mu koy defee at mu jot bi ñu egsee mu ne juróom yi mi ngi dëppook juróomi ponk lislaam yi neenu juróomi julli yi juróomi doomi sëñ Tuubaa yi jot a doon xalif mu ne juróomi sooroor yi ak juróomi dox yi muy juróomi juróom mu ne ma kon mat na mu ne mën ngaa wàcc dox bi moom mën nga ko fi yemale te boo ñëwatee Touba sax nag bul siyaare kenn ba ci mën mi ma ne ko Mbàkke sarax ma rek waaw sarax ma rek may siyaare sarax ma rek may siyaare siyaare moom bu dee am naa dara kon ci dox bi mbàkke sarax ma rek ma daal loo ko ba mu ne ma nangul nañ la ko comme ñun nag ay taalibe lañu ci ndigal la ñuy dox ñu toog 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 muy septième année jamono boobu mu tombeek maa ngi doon meeru Thiès doon septième meeru Thiès ma ne set baa ngi ñëw. ne fi moom itam yàlla na suñu boroom yokk leeram doon septième xalif waaye dafa yokk sooroor yi def leen set juróom-ñaar te ba sëriñ bi doon sëñ Alaaji Baara doon tudd di méngale bay tudd juróom yi daf cee tuddoon sooroor yi te am na lu ci yokk ma ne kon dinaa yokk ñaari dox ngir dëppale loola moo waral ñu ni danañ def ñaari dox ñu def 2016 booba sëñ Cheikh Sidil maxtar dalal nu mi ngi ci YouTube bi ci benn jataay mu ñaanal ñu ci ñetti yoon te saa yu ñaanee ba pare am lum ñu laajaat ci dox bi mu am lu ko ci neex lool bokkoon na ko ci li ci gën a neex mooy nee na liñ doon lëkkale ci biir lislaam bi doon seeti euh, euh, mbokk jullit yi nga xam ne dañoo ne ci yoon wi te bokk ci yeneen tarixa comme ay cene lu mel noonu booba cene ba Euh, at mu jot bu ñu fa demee euh, sëñ Cheikh Ahmed Tidiane sekk yàlla na suñu borom yokk leeram moo doon xalif général booba daf ñu daan dalal jël yatam gunge ñu ba ca jumaa ja defloo nu naafi la ñaari rakka gunge ñu ba fi ñuy dalal ñaanal nu sant njabootam ne bu ñuy xëy fajar nu gunge ñu ba ca taliba ba pare yóbbante nu nag ci sëriñ bi loola loola loola lu neexoon sëriñ bi la Euh, moom dama ci jaare leeral ne ba mu fi jógee it moom sëñ Cheikh Ahmed Tidiane Seck sëñ Abdou Rahim mi ko wutu woon moom itam foofu la jaar ak ñun ba fi ñu toll nii euh, ñu ngi ñaan suñu borom yokk leeram moom itam ba tey jii sëñ Assane mi fi nekk ñu koy ñaanal mu yàgg fi te wér euh, sëñ Assane moom itam mi ngi ci tànk yooyu suñu yeggee cene ba moom itam mu taxaw suñu wet ñaanal nu def ca la ca war ci yoon wi yépp yi nag fépp foo xamante ni dañu fay jaar. noonu lañ koy noonu lañ koy doxee alors juróom-ñaareelu at ba di 2017 moo dajeeg at mi nga xam ne sëñ si Sidil Maxtaar génnul ci màggal gi mooy 2017 bi loola amee euh, nu nu nu dellu xam ne amuñu beneen ndigal bi ñu demee nag ba ci janvier 2018 xew-xew ba am sama yéeg-yéeg benn talaata la woon bi nu xëyee àllarba man ak ñaari nit defe naa ñett ñu jël yoon wi ma ne damay dox siyaare ji. waaw ma ne damay dox ji waaye dox boobu dina wuuteeg yeneen yi puisque bii ñaari fan laa koy def ndax siyaar bi daa waroon nekk àjjuma kon suñu déparé àllarba ñaari fan lay doon ñu bëri. dañoo gis ci ay site internet nit ñi ñu romb ci yoon bi annoncé ni ñi ngi dox ñu jël ay taxi ñii jakartaa dab ñu ca yoon wa mooy ñi daan ànd ak ñun di dox waaw kon mu mel ne juróom-ñetteelu dox la ñu def jëm ci juróom-ñetteelu xalif dox boobu yegg si nañu euh, euh, Bambey 3h30 du matin ndax dañ ko sànjaafu rek mm-hmm. def fa ñetti waxtu ma xool yoon wi gis ne des na à peu près soixante quinze kilomètres ma xool GPS bi gis ne ba waxtu àjjuma treize heures bu nu defee dox benn waxtu dallu benn waxtu dañuy àgg treize ndax bu fekkee ne da ngay dox dox bu normal benn waxtu juróomi kilomètre la booy dox dox bu normal. d'habitude nag comme ñun bu ñuy dox doxu safar dañuy siyaare ci barab yi nga xam ne yëpp nekk nañ ci yoon wi fépp fu ñu yëg ne sëñ bi mas na fa jaar wala kenn ci njabootam dañ fay dem mais bii dañ ne duñu ñu jàdd fenn te noonu lañ ko defee suñu borom dogal nu àgg ba nu àggee sëñ bi dalal nu ne ñu seen dox bii mat na ko mat na ko lool ndax sëñ tuubaa jar na ko te di ngeen gis njariñ li moom. sëñ Mountakha Bassirou yàlla na fi yàgg lool te wér waaw loo loolu loolu bi mu amee ñu jàppe ko ni ndigal la moo waral 2018 euh, boobu bi màggal gi agsee ma ne du ma yem ci wéyal dox bi dama koy yokk ma départ ji Dakar Camp Dial Diop fa ñu dugaloon sëriñ bi booba bo parce que xam nga lee dafa xew ci janvier mm-hmm. waaye màggalu 2018 ba mu ñëwee dama ne duma ma déparé comme sëñ bi nee na mat na ko mat na ko lool ndax sëñ Touba jar na ko te di ngeen gis njariñ li ma ne dama koy wéyal waaye du ma yem ci wéyal ko di déparé Thiès damay déparé ci Ndakaaru ma dem ca Kanjal Diop fi ñu dugaloon sëriñ bi booba ñoom sëñ Saalum Bousso mi ngay tudd ah, ak eh, yeneen mbokk eh, eh, ci kilifa yi ànd nañu ñoom ñëw fekk si ñu ànd ak ñun dem ñaan ca barab ba ñu déparé foofu ñëw ba ci jumaay Masaalikul naan booba kenn inauguré gu ko mu mel na ñun ñoo ko njëkk a inauguré 2018 fekk fa euh, sëñ Modou Mbaye Samb Nasir Dieng ak imam ba ñu won ñu barab yépp ndax di sant rek ci yoon woowu noonu lañ ko defee 2018 2019 ñu defewaat ko noonu mais. comme dafa fekk inauguré nañu Massalikul Jinaan ñun ñu ni kon fa dox bi di tàmbalee euh, ñu def fa kaamil waaye man ak ñetti nit ñun dem nañu Kandial Diop déparé foofu ci ci lu amul caméra amul coow amul photo amul dara ñëw fekk ci ñële ñu jàng xatmul xatmul bi suñu kanam ñu gis imam bi mu ñaanal nu nu tàmbali foofu ñu ni dañuy lëkkale juma ak juma ñu tàmbalee Massalikul Jinaan dem ba Mbàkke fa sëriñ bi bindee woon Masaalikul naan jóge fa dem ca ca jumaay jumaay Tuuba mooy Mbàkke Mbusoo bi voilà ma ngoog mu ngi noonu léegi loolu bi nu ñëwee ba 2020 mu dajeeg mbas mi bi mu dajeeg mbas mi ñu jël 28000 masques cey 28 yóbbuli ko sëriñ bi cey 28 ñu dem yóbbuli ko sëriñ bi te fas yéene it ci yoon wi war cee joxe lu tol noonu bu ñuy dox bi ñu demee la ñu jot ndigalu ne comme man Thiès laa dëkk naay tàmbalee Thiès lii moo indi ñuy dema ñuy dema ñuy déparé waat cees kon lépp mu wéy ci que nag ñun ay ay taalibe dañuy ci ndigal rek la ñuy dox euh, booba at mu jot bu ñuy waajal euh, dinañu dem Touba euh, Cheikh Bass Abdou Khadir mi nga xam ne te ji moom Euh, laa jaar ci so ci sama diggante ak sëriñ bi euh, ma ci ma koy ziar bu baax a baax di jaar la ci moom it ziar boo xamante ni maa ngi koy euh, jëmale ci kilifa yëpp bi nga xamante ni dem nañu waat ca moom mu mu mu taxawuñu ci am na ku mas a sax ñu mas a jóg sax ne dañuy dem ci sëriñ bi pour wax leen ne wax ko ne ko naa naa bàyyi naa bàyyi dox bi ba nu demee ca moom dafa leen Euh, ab taalibe moom pas-pasam su ma ko yokkul duma ko wàññi. waaw loolu waaw su ko yokkul du ko wàññi. Euh, euh, boobaak léegi nag mu mel ne dox bi ñi ngi koy ànd ak waa kuréelu doxu safar man dox bi daanaka tey jii ngay lañ may njëkk a dégg ma di ci wax ndax dañu am ku ñuy wax Youssou Diop. Mm-hmm. mooy porte parole dox bi. waaye xam nga 28 moom dañ ko mënta bañal dara. waaw. li nga xam ne moom la ñuy def ci kuréelu doxu safar mooy fexe ba nga xam ne ñiy dox di jokkoo fu nu toll ak ñi ne ci barab yi ñuy dem maanaam tey jii fas nañu yéene pour ren ji le set ci ngoon euh, lan fay départ dafay fekk man ma yendu kër sëñ Saliou ture ba noppi buñ daan départ suba damay fanaan foofu ndax moo fa toogal Serigne Touba. waaye lu ko jiitu nag këru diine yi nga xam ne këru diine yi nga xam ne tarixa yi bokk ci lislaam te ne ci biir Thiès damay dem tàggu leen amul benn at bu may jóge foofu te tàgguwuma leen ne maa ngi dem ñoom itam ñu ñaan yóbbante nu euh, bu ko defee su ma jógee kër sëñ saalu Touré dem ci xabru sëñ Ablaye Yàqin buñ fa jógee dem ci jumaa ji ci pénc mi euh, foofu kër sëñ Ablaye Yàqin fekk ñu jàng alxuraan julli euh, tàkkusaan bu ñu paree ñaan départ bu ñu déparé jëm ci Kër Madaro foofa dafa am njabootu sëñ Mourtada bu fa nekk sëñ Tàkko Mbàkke moo nu ñaanoon euh, nu nu jël barab boobu tamit njëkk ko def suñu ak alt bu njëkk loola dañ koy def bu ñu fa jógee euh, dem Touba yi après dem ba Euh, ba ba cene ba nemee cene ba comme ni ma la ko wax rek fanaan fa bu ñu jógee cene ba nag ci deuxième jour bi ñu ngi jëm xombol dañuy jëm xombol euh, xombol nag euh, barab bañ fay dem ci kër sëñ Moustapha Ba di Mouhadamou Seydi El Hadj Malick kooka kóllëre moonu boole waaye koo xam ne la saa yu ñu fa masee dem lam ñuy wax ci Serigne Touba day doon loo xamante ne ak yokk lay doon ci ñun ah yëpp xam nañ ni foofu ci xombal am na fa jumaa joo xam ne wax nañ ni sëñ bi julli na fa ma ba ñu nekk di ko defaraat nii moo tax at mu joti dañ fay dem bu ñu fa jógee euh, jëm ndàngal ma pour fanaani fa waaye bëri na barab yoo xam ne dañu fay jaar am na ay barab yoo xamante ñi ngi fa denc ay kilifa ci yoon wi dañ fay jaar tamit siyaare bu ñu fanaanee ndàngal ma bis bi ci topp ñu xëy dem seew seew googu dañu fay yendu am kuñ fa ñaanal ndax daa am ku ñu mas a romb nuy dox mu jaar fa siyaare ñu bi mu delloo Cees fan yee ca topp ci la wàcc liggéey ñuy def nag at mu jot seew boobu ñu def ko pose di fa ñaan di fa ñaanal mbokk moom di fa ñaanal ñëpp ñi nga xam ne war nañ leen ñaanal waaw seew nag dañuy dem Bambey séeréer bu ñu jógee Bambey séeréer dem Bambey Bambey suñ fa demee ba wàllu gee lañ fay doog a jóge dox jëm Kër Sayar Kër Sayar it li ñu booleeg seew moo nu booleeg moom ndax dafa amoon beneen mbokk moo xam ne taalibe Cheikh la mais bëggoon dox bi bëgg boo xam ne amul étape bu ñu daan dem te du nu fa dab indi nu fa ay ndox wala ay xéewal yu mu mënti doon ba ci ay njaxas euh, Kër Sayar nag la ñu mujjee gisanteeg moom bi mu delloo Thiès Euh, ca fan ya ca topp nekk ñuy ñuy toll ci ne suba la màggal ca la wàcc liggéey kooku tamit kër Sayer googu at mu jot ñu ñaanal ko ci ndax fa lañ mujjee woon dajeeg moom. alors buñ ci jógee dem Laañaar Laañaar buñ ca jógee 11 kilomètres des ñu egg Njaareem fa ñuy dem nag ci Njaareem nekk ci booru hôpital Lukke ca HLM yi day numéro 114 di nombre saaru alxuraan yi waaw. ca kër Baye taala Joxaane at mu jot donte daa sori ca biir ndegam ba ñuy tàmbali loolu lañ njëkkoon a def constaté mu tombee ci 114 bi ba léegi nii dañ koy def buñ fa jógee nag doog dem ci kër sañu affaire mi nga xam ne mu ngi jàkkaarloo kër gu mag ndegam nee nañu ku tedd ki daana dox ak tànkam tedd tedd boobu dem ba ca foofa di seeti rakam ñun dañ koy def ak mu jot barkeelu ci ba pare dem kër gu mag siyaare buñ fa jógee nag dox jëm paataar buñ demee paataar fanaan fa suñu xëyee jëm ndulo ndulo googu ren ji am na sunu mbokk mu daan àndal ca dox yu njëkk ya ñu fas yéene ko caa ñaanal ca ndulo boobu ndax daa am lu fa xewoon ci suñu digganteek moom ak ndulo waaw waaw ñu mu ñu koy wax li bay Cissé Cheikh Cissé euh, léegi fas nañ ko fa tàmbali di ko fa defal ñaanal ñaan foofu ci ci ci ndulo bu ñu jógee ndulo nag dem xuru te ñëpp xam nañu xuru Mbàkke moom la fa ne bëri na barabu soxna maam jaara la waaye barab la boo xam ne euh, sëñ bi lam fa tàmbalee bëri na waaye it la fa nekk ci wàllu njabootam ak ci wàllu xéewal ak ci wàllu ñaan euh, ba ci sëñ bay jaxate ma fa sëñ bi féetale woon mu ñuy dellu si waat fu mu toll moom sëñ bay jaxate moom moo dañ fay dem di siyaare ji moo te maa jóg fàttaliwaat te soññewaat ngir leenu dem te duñ dëppaat amaana digg ba jege na dama dem ci sëkk fekk fa kepp nit mu ni cundum ci biir bàmmeelam ak i jëfam ma xam ne ku xam ni fii dik mu jëm bu yeewoo day teel a jóg ciy mbiram foofu at mu jot ñu dem fa siyaar euh, fa jële fa lu bari buñ fa jógee nag euh, jëm euh, xur ci ci daaru xafoor bu bàyyi Saliou Fall bu ñu demee daaru xafoor fanaan fa bu nu xëyee jëm dala ndax nee sëñ bi moo ne woon mat na bu dal waaw waaw kon faawu ñu dem fa ba dal waaw faawu ñu dem dala ba dal euh, bu ñu demee dala euh, saafonte fa ak mbokk yi euh, léeg-léeg waa axlu café bu soxna maam Issa bu sëñ Modou Faat xarit léegi-léeg mu fekk nu fa. ñoo yore communication ñi koy nuyu de passage. sëñ bi wallahi wallahi parce que ñun bokk nañ ci at mu jot ñi ànd ak moom. sarsar wallahi moom moom nag day jàmbar. moom day jàmbar. Mm-hmm. Euh, te xam nañ ni diis na ci kilifa yi bu ñu demee bay màggal des lu matatul ñetti fan ñuy mën a génn Touba waaye nag defal nanu loolu ñu ciy sant waaye daf fekk bi may nekk tuut tànk nekk kër sëñ Ablaye Yàqin googu nga xam ne. Euh, sëñ Modou Fatou Khary dafa daan ñëw yàlla na suñu borom yokk leeram at mu jot ci kër saa Sandiame Konte booba da daan def bu dikk rek laajte woolu ma <laughs> bu ñëwee teg ma ci kawam bu ñëwee teg ma ci kanam parce que boobu nee na dama neex léegi euh, mu atam nag suñu waa kër di di di joxe reer ñu ne ma waa doo man leen damay xaar sëñ Modou Fatou Khary far ma nelaw dégg nga ñu ma koy tooñam léegi nag moom la soxna maam euh, Isene dina ma ko fay waaw. dina ma ko fay moo tax at mu jot rek suñu borom boole nañu ci lu mel noonu kon bu ñu jógee dala dem ngaabu ngaabu googu njabootu sëñ Abdoulaat euh, moom itam yàlla na suñu borom yokk leeram euh, euh, rawatina sëñ Amsa boole ñoom ñoo ñu fay dalal foofu ca ngaabu ca tool ya waaw at mu jot nag vraiment ñu ñu jëm foofu barkeelu fa bokk mbokki taaliba ya fa nekk xéewal ga nga xam ne moom moo fa am suñ fa jógee nag jëm Mbàkke buñ nee suba la màggal di 17 safar la ñuy jëm Mbàkke ñoo ko defee noonu nga xam ne bis boobu lañ ñuy dalal ci Mbàkke luñ fuñ fa war a siyaare ñu siyaare fa nga xam ne 7 kilomètres moo nuy dese ci bis bi ndegam màggal gi yoor yoor bi la ñun bëgguñu faa egg avant loolu waaw loolu la ñun ñooy toog waaw dal Mbàkke lu ñu fa war a siyaare siyaare ko bu ñu xëyee nag ci huit ñu départ ba bu ñuy dugg Touba entrée officielle bi muy tombeeg yoor yoor bi bu ñu dikkee jël suñu jëy yi dëpp ci suuf bu loolu paree ñi ñuy dalal ca kër sañ Touba bi nekk Daaru Marnaan maanaam officiellement léegi bu njëkk dañ daan dem ba jumaa ja mais léegi officiellement ci ndigal fa la bi di yem. waaw maanaam ca kër sëñ Tuubaa bu ñu demee foofu lafay am ci waxtaan ak ña ñuy booleel bu am nga xam ne ñun bu ñuy gisante ak sëñ bi su bis la buñ ñu beral bu bokkul ak bisu màggal bi hmm. maanaam doxkat yi sëñ bi da leen di recevoir à part léegi nga xam ne bu ñu génnee foofu kenn ku ñu nekk fa ngay siyaare ji yow nga dem fa nga dem ku ci nekk nga dem siyaare ji ma marche bi jeex na léegi bu ko defee kenn ku ci dem siyaar yi man ma dem ci kër Cheikh Bass Abdou Khadre ba ba ba jot ndigal ma wàññi ko waaw. loolu loolu daal moom noonu nii daal lañ koy defee euh, euh, euh, yàlla xam na ni nit ñi sawar nañ ci ñi ci ne daaw tolloon nañ ci 33 marcheurs ak ñiy organiser doxkat yi donc fanweer ak ñett la woon daaw. léegi ak ñiy organiser parce que dafa am organisation nag bu ci bu ci bu ci am solo waaw bu ne ci biir ndax état bi yëpp dañ koy waajal waa dafa am nu ko tëralee noo xam ne moo waral lu bëri du ci du ci kii xëy na peut-être ñaari fan yu mujj yi mooy gën jafe ndax xam nga oto yi moom bu commencé xat dañuy wàcc tali bi fekk suñu ci suuf waaye loolu it ñun tam am na nuñ ci organiser wu ba ba di ko gérer noonu. Euh, ndax nag comme ñun dañuy xam ne rek ñëpp dañu war a laabirante ndax fi nu jëm ndax li nu yëkkati ndax fi nu jëm mooy dëgg te dëgg nu yëkkati te ci loolu lañ jëm voilà yooyu daal mooy li nga xam ne ci wàllu organisation dina am daana am aussi ay wàll problème ci wàllu côté communication parce que ñun comme dañoo jugoon rek di dox ngir sëñ bi yu bëri yitteelu nu woon mais gis nañ ne dafa am njariñ ndax daaw comme niñ koy defee at mu jot biñ nee suba la màggal àgg nañ Mbàkke ci bis bi euh, yoor yoor fekk nañ Touba ñu jaar fi nu war a jaar keroog tisbaar maa ngi ko jullee ci ginnaawu Cheikh Bass Abdou Khadre waaye teewul am na benn sit bu bind ne ñun ca màggal ga ba ca suba ga la ñu agsi <laughs> xam nga xam nga loolu. xam nga da ngay dul xam lan mooy tax nit di war a mën a jóg di dugg ci lu mel noonu. waaw waaw mais teewul def nañ ko te am na ñoo xam ne yooyu rek la ñuy lijjanti ñoo xam ne loolu rek la ñuy lijjanti <laughs> moo tax yàlla nañ suñu borom yokk suture amiin euh, mbokk yi ñu seetaan ci 28 ba may fàttali loolu moom nekkoon itinéraire bi nga xam ne nii ak programmation bi nga xam ne moom lañu def ci doxu safar bi euh, mu doon loo xam ne ni maanaam képp koo xam ne ab taalib bi war nga am loo yëg boo déggee taal si la di expliqué état bi nga xam ne ni moom lay déparé ak secret tamit maanaam bala bokk li nga xam ne moom moo ci ak xéewal gi muy taseel ci dox bi parce que yëpp ay lim da nga taseeg moom wax nga ci 28000 masques wax nga ci 114 ay alxuraan bi wax nga tamit ci maanaam 7 kilomètres yi nga xam ne nii moom mooy tax dox sa digganteeg Mbàkke muy jëm ci yoor-yoor ga kon euh, loolu du hasard euh, mbokk yi 28 pro tamit dikk mu tombeek sa chiffre bi nga xam ne ni dafay tombeek yow ci lu bari weeru safar mu ngi feeñ le 28. wallaahi yaa ngi voyagé lu ci ëpp. di tombé ci ay 28 kilomètres. saa yu saa yu ma ci tombé rek yónnee ko sëñ Saliou Bousso. yàlla xam ne ni man xool damay da léeg damay dem fenn di jënd carburant sax. tombé ci bi may jël vingt 28 la. loolu nag ci yëfi suñu borom bu ma ko yónnee rek mu ne ma Touba moom moom nga àndal fi nga jëm yëpp rek waaw. kon nag 28 pro sa 28 pro la. Euh, loolu ñu ngi la koy cëralee tamit mu doon loo xam ne nii vraiment euh, euh, neex nañu trop. Mm. Euh, ndax fi mu jaar tamit nee naa la ba yegg si fi ñuy li ñu boole muy Serigne Saliou Bousso mbokk yi maa ngi koy nuyu de passage di sama xarit man sama xaritu bopp sama wëllëre mais daal nga nettali ma tuuti rek dañ koo fàtte woon ci bu ngeen di dox à ah, main la amul yanu xéewal amul yanu dara wala nu mu demee noonu. waaw xam nga bu ñuy bu ñuy xam nga bu ñuy dem bagage yeeg yooyu yëpp am na fu muy ne par exemple bu ñu waree dem xombol am na ñoo xam ne jiitu nañ xombol dem jàppale ji ña ñu war a dalal ñooñu bu ñu waree togg maanaam duñ leen yenn lu leen di luy jafe ci ñoom am na ñenn ñoo xam ne nag ñoom ñoo fas yéene ne ñoom bëgguñu ko leen jàppale ci dara bëgguñu sax suñu ñaare dërëm dugg ci ñoom ñoo ko bëgg barkeeloo ci yoon wi loolu am na ci mais am na ci ñenn ñoo xam ne seen bëgg lañu am ak seen yéene te xëy na xëy na mënuñu leenu yéene ñooñu dañ koy bokk ak ñoom moo waral daanaka bagages yi am na ci barab yu muy nekk. tey jii dina am nee naa la bu ñu gënee jege tubaa day am ñaar ba ñetti oto yoo xam ne dañuy protéger doxkat yi ndax nee naa la dañuy toog ba mu yàgg oto yàqamti fàqe ci tali bi jëm wàcc ci suuf léegi nag day am oto yoo xam dañuy ëmb doxkat yi ci ginnaaw waaw dañuy ëmb doxkat yi ci ginnaaw di leen protéger loolu aussi farata la ndax boo amee expérience tuuti rek di nga ci di nga ci di nga ci di nga ci xam daal ci ñi ñu àndal di dox am na ci ñaar ñoo xam ne daaw ku ñuy kenn ku ñuy wax Pawadde am na 65 ans am ku ñuy wax sëñ Mbacke sëñ Mbacke juf am na 68 ans donc ren 69 ans te ñooñu ku leen ne doo dox ñu reyante ak yow. ñooñu ku leen doo dox ñu reyante ak yow xam nga kon tey jii xam nga loolu boo ko gisee nga yow nga gën leen féete ndaw fuuf du def lu dul encouragé la xam nga nit ñu ci bëri xëy na dañuy dégg dox mu yéem leen mais dox bi lan moo ci ne lu yéeme. ñun déjà waxuma la dara mais sëriñ bi lim ñu defal dafa waroon tax même bu doon loo xam ne ne buñ koy def deret di génn ci ñun mu jar ñu di ko def waaw waaw ndax ndax lim ñu defal defaluñ ko suñu bopp mënuñu ko defal suñu bopp suñuy wëju defaluñ defaluñu ko loolu mooy dëgg te dox ñu chrétiens yi dañuy dox dem Popenguine kat moo ci wax xam nga kenn waxu ci mais parce que lu mën a nekk la parce que ci ngëm la lalu tey jii ñun ci suñu wàllu bopp am nañu ngëm boobu xam nga tey jii ka nga xam ne moom dafay dugg oto dem am na sañ-sañ bi kenn terewu ko mais bu dee kenn terewul loolu terewuñu ñay dem di dugg ci njëmbat yi wala ñi nga xam ñoo doon lang ay saxaar mais waruñoo mën a tere tamit nag koo xam ne dafay am yëg-yëg ne dafay jël tànk bi bii pëndal ko jëm sant la ji Euh, euh, euh, yàlla sëñ Touba loolu loolu loolu loolu moom loolu loolu daal ci loolu lañ nekk ci vraiment ñi ñu ko bokkal nag ci biir dox bi xam bu ñuy dox nag dañ naan taala ndax xëy na li ko suñu borom jaar la ci man xam nga dàngal ma dafa am lu ca xew mooy maire ba di ministre Mor Ngom moom mosul fekkee foofu suñu dox bi mosul fa dajeeg moom waaye way juróom bu jigéen at mi mu déggee mi mu njëkkee yéeg ni damay dox dafa daanu xam ñu yëgal ma ko ma ni kii day jar na kon saa yi ñu jógati di dem ah ñu ñu def ñu dem ba ci moom at mu jot nag dañuy séntu at mu jot ñu jëm ci moom waaw bëri na nag ay mbir yoo xam ne xew na ci yoon wi ci ay nit yoo xam ne ay yaakaar yu ñu am ay di vraiment di sàkku ñaan ci sëriñ bi ah, sëriñ bi defal leen ci tawféex mu lépp jaarale ko ci yoon wi ñoo xamante ne at mu ñu fa jaar ñu am lu ñu ca gis loolu lépp ñu def ko ak cant ah, bu ñu nekkee ci yoon wi léeg léeg-léeg am ñenn ñoo xam ne seen addiya yi ñu am ñu joxe ko ñu boole ko takk bu ñu yeggee jox ko sëriñ bi. Euh, fi luy jeexalee mbokk yi moom moo ci générique bi nga xam ne nii chaque année euh, dafa am benn booy def tey am na boo xam ne ni génn na euh, yàggul dara dafa mel ne loolu tamit dafa bokk ci liggéey safar bi. waaw ndax nag xam nga dox moom dafa am lu mu àndal tamit. te ñu ëpp si ñu tamit ay Baay Faal euh, moo waral am na euh, yenn euh, yu ñuy def ba am na bu ñu def ren yónnee naa leen ko boobu xam naa ne du ñàkk di ngeen ko def ci site bi fas yéene woote rek ci màggal gi ak loo xam day gunge dox bi waaw murid yi ñëw leen màggal ah màggal war na bépp taalibe ndax Sëriñ Bamba defal nañu lu ko jar loolu loolu loolu ñu ngi koy wax ñu ngi jaar nag di presque daanaka euh, xalif yi fi jot jaar yëpp kenn ku ci nekk am na bayit bu ñu def ci moom euh, ci biir euh, morceau boobu ba wax wax ci am lu ñu ca wax tënk ko mu doon loo xam ne rek ñaax lay doon mu doon loo xam ne dina delloosiwaat tamit mbégte ci murit yi ak indi ak fàttaliku ci lu baax li nga xam ne ñoom ñëpp def nañ ko fi loo xamante ni day taaral yoon wi taaral yoonu murit ba nga xamante ni euh, ñun ñëpp ñi dooni taalibe danañ gën a sawar ci bu ñu nekkee ci yoon wi. Serigne Talla Sylla 28 Pro mi ngi lay sant ak gërëm euh, dëgg daje kon ca. 18 safar ba. waaw ca ca 18 safar ba bu soobee yàlla. Uh-huh. waaw waaw mooy sant Serigne Touba di ñaan suñu boroom euh, def ci tawféex bismillah yi ma door di kañ Bamba yaaram ba liggéeyal yàlla borom ba. te dinaa ba digg jóor ma yéemu Serigne Touba di géej ku yër gën a waaru yitteem mooyul der baak téere ba amul seneen soxla sudul dul jàmm borom ba ceddo baak nasaraan bay àndi rëg-rëg yi lëkkaloog seytaane tey fexeel sëriñ bi xalaat ya naat pexe ya yaatu gaal ga teeri gabon jinne ja faatu it xaru jox yi ilaaho mi waltax fi na yow ma jami xal xiniraana liggéey bu sell ba mu def maa yombe barkeel na mbàkke njaareem ba muy tuubaa jaayante nag yàlla mu jox koy xéewal tuubaa lañ ko fayee réew mi dajee ki xéwal dem na gànnaar ca Cheikh Sidiya Baba jaaxal na bànni deymaan ca Sarsara yow yàlla noo ngi ñaan ci barkeb na bi Sénégal jaare ci yoonu baam ba ba janni Serigne Touba di géej lépp ma laab yow mal ku ko gis yow mucc ngay sàmm. jërëjëf mbokk ñuy seetaan jërëjëf mu doon lu am solo kon mbokk yi Euh, spécial doxu safar euh, Talla la dégg ngeen comme ni mu ko baaxalee 28 Pro TV ndax am na koo xam ne moo daan yore communication bi waaye daf ñu ko jagleel kon donc ñu ngi ko ci sant ba baax a baax di ko ci gërëm ci disponibilité bi nga xam ne bi ñu ko ko wooyee da cee sawar lool euh, lu doon loo xam ne mbégteem taalibee la noonu rek la mën a demee parce que lu jëm ci safar kenn du ko ci maanaam jiitu te loolu maanaam liggéey bu mu tàmbalee te fas yéenu koo bàyyi mbokk yi ñeneen ngi àndoon ci kàddu gi Siri Jaxate ci caméra bi Xaadim Cissé ñuy dig daje incha allah mbokk yi di leen jóg rendez-vous ca tuubaa dëkk bu sell ba ndax fii la ñu tàmbalee ci Ndakaaru kon xam naa ne dañ koy yeggalee foofu dañ ci Touba jërë ngeen jëf jërëjëf Sëriñ Touba jaaraam maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf. ku nekk ak la fa ne. ku nekk ak tànga tane. ku bëgg nag sa mbir tane. weeru safar wi fursala. boo forcé wul a sawar. te boo amee sa fas nga war ni bismillah génn sa kër te màggali farata la ñi yor oto ñi war vélo fas ak wàcce ku ci tolloo solal sa mbubu rekolu wuti Tuuba farata la nag dëkk di waxu siin ak mi mara guddi Tuuba farata la boo duggee it ca dëkk ba siyaare borom dëkk ba dem ba ca buntu xabru ba